asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ Tuubaa bu wér di ñaan sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér di sant suñu waa dëkk bii Lomé jël sant gi teg ko ci loxol suñu jëwrin El Hadj Mamadou mu jox ko El Hadj Moustapha Fall jox ko El Hadj Moussa El Hadj Assane Mar jox ko El Hadj jox ko El Hadj Asila Mori Mori Diop ñooñ ñooy xam si ñoo fi teewal daayira bi fii di leen sant ci tegtal bi ngeen tette nit ñi dëkk bi di leen xamal ni dañoo am gan ñu tedd rek fi ñëw ñuy waa daayira turu eh, moo xatal ma bu Touba mos grande mosquée bu Touba e, jiite ko sëñ Abdoulahat Bousso ak sëñ Jili Bousso ñu leen di ziyaare di leen dalal jàmm di ñaan yàlla lépp li ngeen tànk bi nga njëkk di ñëw def ko def dëkk bi rek sëñ Touba fulal leen ko ni ngeen ko bëggee di ñaan yàlla li ngeen yëkkati mu mat sëkk waa tey ji nag fii ñu daje dañoo nekk suñu kër benn jëwrin mu tudde ko daaray sëñ Touba fii kër El Hadj Moustapha Fall waaw eh, mu ni nag damaa jox ma waxal ko rek introduire ko que ni mi ngi dalal gan nit dal dalal gu sell mu ngi leen sant seen déplacement bu leen neexa mën na leen ci bañ fekk waaye moom mi day di ko xam si ku fi ñëw lii mooy jikkoom dina la dalal teeru la teral la ci Serigne Touba rek tax waaw ca mag njëkk la la commencé woon ba tey ji ci moom waaw ñu koy sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla lépp luñ kàddu ñu fi tudd rek yàlla barkeeral ko ba leen yëkkati yàlla barkeeral ko di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salaamaaleykum wa rahmatullahi taalaa wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yépp ak jotaay bi ni mu tëddee nga xam ne ki fi gan gi ñuy teertu tey di ko dalal muy sëñ Abdou Lahad Bousso jóge tuuba ànd ko ak sëñ Abdou Khadre Bousso ñëw fekk ñu fii ci Touba lome Togo Euh, fan yëpp nag ñu nekk ko fi ak mbokk taalibe yëpp dalal leen ci kër sëñ Touba gi nga xam ne ci fànn boobu laay waxee muy kër sëñ Touba ji ñuy tabax fii muy juma ak daara ànd ko nag ak mbokk taalibe yëpp ci jiital ci njiitalu jëwrin bi sëñ Mamour Dramé ak euh, kii toog di sëñ baaba sëñ Maam Baba Dieng sëñ Abdoula euh, sëñ Daouda Niang As Silla sëñ Mori Diop sëñ Modou Moustapha Fall ànd ko ak mbokk taalibe yëpp fii ci lome li ci euh, xëy na kàddu yi ma ciy jël rek mooy ndigal la mënuma ko sañ bañ waaye li ci ëpp solo rek mooy xaw na waxtaane kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii <clears throat> te yàlla dogal biñ koy liggéey biñ ko tàmbalee léegi mu toll si ñaari at ak genn wàll jëm ñetti at muy liggéey boo xam ne maanaam ñu bari dañ koy xool di ko rafetlu di ci yéemu maanaam mu mu mu mu mu neex mbokk taalibe yu bëri daal waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi xam nañu ne sëñ Touba moom mbiram nii rek la mën a demee te it ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy wax ne ñoo ko taxawu sax leer nañu ne sëñ Touba moo taxawul boppam liggéey bi ndax pàkk la boo xam ne biñ koy li ci nekk ci ay ay mbiri euh, baatin dafa bari kon liggéey bi bu yegsee fii ñun dañu ciy tudd nii rek waaye daanaka xam nañ lépp ne sëriñ bi pàkk la boo xam ne bi ñu jógee di ko xool yi bésu Kazu Rajab la tombeel ba ñu jëndee pàkk bi tamit nañ ko xalaatee woon ak lañ ca defoon ci projet xalaatoon ne ab mbaar ñi di wax ay mbaar ñi di wax benn kii yàlla dogal euh, itam projet ba ñu ca amoon nga xam ne plan la boo xam ne na mu tëddee woon bu ñuy dox ci biir plan bi di liggéey gis nañu lépp di soppeekul boppam te du xalaatu kenn ku dul daf ñu leer ne sëriñ bi moo koy doxale noonu leneen li ci tegu tamit mooy Lomé nekk dëkk boo xam ne daayira bi nga xam ne tey ñoo fi tabaxal kër Sëñ Tuubaa gi bu ñu toogee di daayira matuñu vingt membres actif yoo xam ne ñoo seq daayira bi kon ñi bokk membres yi sax leer na leen nii moom kër gi si baatinu Sëriñ Tuubaa rek ci lay dox képp ku la fi wax ne la lii mooy plan bi lii lañu def lii mooy projet bi fii la xaalis bi jóge mu ngi lay wax loo xam ne euh, da koy wax rek ci coobare boppam waaye li ñu wérte te wóor euh, man yàgg naa bu bokk ci ay liggéey yu bëri yoo xam ne liggéeyu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk taalibe yi ci bokk nekk ak suñu jëwriñ yi jóge Touba. di dox ci nemmeeku yoonu géej gi Cheikhul Khadim bi leen indi fii ci Lomé gii ñu nekk. di ko sant yàlla nag bu baax ndax uh, kàddu yi moom yaakaar naa ne war naa mën a néew ndax liñ ci taataan dafa doyoon fii ñu koy tudd te dañ xàmmewuñ ko ak fii ñu samp daari sëñ Tuubaa ndax fu ñu nekk fu ne dañ ko bëgg mu nekk eh, liggéeykaay bu ñuy def jëm ci sëñ bi waaw loolu lañ fi dajeel dañ jàpp ne moo nekk fii rek li ñu may wax ci lii nag eh, dama yaakaar ne ku nekk am na yëg-yëg bu mel noonu nga xam ne daanaka eh, xew-xew yëpp aw soññ laa ko def ndax sëñ sëriñ jëwriñ asamaar da ko wax sànq mbooloo mi matewu ko jombul kattan ak man matewu ko waaye sëñ bi daf ñëw defal feex goo xam ne euh, fi jamono gënoon a yëngoo ñaakan si la gënoon a si la ñu def tawféex ak jox ñu kattan ak man-man goo xam ne lépp lu jëm ci liggéey sëñ ci waaw kër bi bañ ko tàmbali ba léegi noppil macha allah waaw buñ ci tolloo ci diggante bi ku jóge ci sëñ euh, fàllu jaar fi sëñ Mbàkke Maaram teg ñu ci yoon woo xam ne si ku ne ñu indi fi ñu nekk ah, ñu mel ni bu ngeen fi ñëwee man sama jëmmi bopp sama njàngat bi am mooy ab soññ la yoonu sëñ boo ci nekkee bul gestu li sëñ Muntaxa wax rek demal rek ku dem demal ku dem demul si ku ma ne bu ñu nekkoon jàppanteeg bàyyi bu ngeen ñëwee di ngeen ñu teggi dem kotum bu dem fi ngeen di dem sama njàngan lépp ci yoon daal mooy li indi ba fii ba ku ñëw bëgg ñëw gëstu egsi fi ak li tax ah, foo nekk gis ñuy jël luy ay nataalu dañ fi def di ko yóbbu bu mu ñu màndal na doon xam ne ay jàjj loo xam ne bu ñu fa jógee nañ joxe yeneen jéego yoo xam ne bu ngeen jógaatee bu ngeen fi yàlla indee di ngeen fekk leneen lu ba fa bokk ak li nekk fii loolu rek laa ko jàppee ñaan saa borom jéego yi ngeen ko seq ba kenn koy nopp saa yi bu ngeen ko jégee bu jéego bu nekk nag faju aju ci yéen ak ci ñun loolu tawfeex tey taysiir te sëñ Tuubaa mi tax ngeen jëf tax ñuy jëf yàlla nañu dajee ngërëmam fii ak fa ñoom maag Cheikh Xarim jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar te di jéggalu nag ci kàddu yi nga xamante ne maa ngi koy jël ci sama ay kanamu jëwriñ maa ngi koy jéggalu bu baax di ah, ñaan Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. moo ko mbooleem kilifa yu fi nekk maa ngi euh, xanaa di di soññ rek nag di soññ soxna yi di soññ sama bopp ci liggéey sëñ bi di wax képp rek ku mu doon foo mun munti nekk nga def ci Pastef ndax xam ne sëñ bi rek lañu am amuñu lu ko ëpp te mënuñu koo am it nag te buñ ko doon bëggit duñ ko am tey bëgguñu ko kon maa ngi santaat bu baax di soññaat nag sama mbokk soxna yi ñu gën a def Pastef ci liggéey bi di sant sama jëwriñ yi nga xamante ne ñoom laa nekkal fii ci Lomé macha allah ñu jàpp ci liggéey bi lool teg ñu ci yoon di ñu ci terte te saa su ne ñu ñuy sonn nag ci liggéey bi maa ngi jéggaluwaat nag bu baax ci kàddu yi ma jël ci kanamu sëñ bi ak kanamu ñëpp ndax xam naa ne li fi sama jëwriñ yi wax mënumaa wax lu ko ëpp maa ngi santaat bu baax di jéggaluwaat di ñaanal ñëpp nag tawféex ak taysir ci barke sëñ Touba jërëjëf. waroon njëkk nag mooy présentation bi maa ngi ah, waaw man maa ngi soxna maa ngi maa ngi tudd soxna Mati ah, maa ngi liggéey ci institution internationale yi maa ngi ñëw ah, Lomé 2020 macha allah bi ma ñëwee it nag li tax ma xam Kër Sëñ Touba damaa ñëw amoon kuñ ma booleel koo xamante ne ndeysaan taalibe bay Ñas la bi ma ko woowee moom rek laa njëkk xam ci dëkk bi bi ma ko woowee ñuy waxtaan ma ne ko waaye xamoo fii daayira walla kër sëñ Touba mu ne ma ah am nañ kër sëñ Touba boo xamante ne chaque dimanche dañ fay dajee daayira ma ne ko dimanche bii di ñëw ñëwal sama kër ñu ànd nga yóbbu ma kër sëñ Touba bi ma bi mu ñëwee sama kër ci la ma jël si ci dimanche boobu ma jël taxi ñu ànd dem Kër Sëñ Touba ci la ma woon Kër Sëñ Touba bi ma demee nag xam naa ne ñëw naa Kër Sëñ Touba parce que fa laa bokk te bi ma ñëwee samay jëriñ dalal nañ ma macha allah boobu ba tey nag jooyu ma dara bi ma ñëwee Lomé ndax jógee ci say mbokk ñëw feneen fekk fi say mbokk ba pare xam ne say mbokk nga nekkal loolu laa yëg bi ma ñëwee Lomé moo tax tumuraanke ma benn yoon ma koy sant sañ bi bu baax a baax ndax mënoon naa mënoon naa demee neneen. kon bu ma bu ma dimbaliwee ba bi ma ñëwee Lomé xëy na ma waroon fee tumuranke wala leneen mu teg ma ci yoon ba ma fekki këram fekk njabootam fi ma bokk kon dama ko ci sant bu baax a baax moom sant googu moom amul amul fu mu yem maa ngi ciy sant sëñ bu baax a baax maa ngi santaat ñëpp di sant sama jëwriñ yi jaajëfati tawféex. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa daahiratul miftaahul xuyóor Touba Lomé maa ngi siyaare taalib bu ci nekk ci turam ak santam te waxaat jërëjëfe sëriñ Touba eh, te ñaanalaat sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér di ñaan itam sëriñ Amdi Moustapha Fall yàlla na fi yàgg te ci barke maam Cheikh Aram Fall Babou Mouridina ci barke sëriñ Touba waaw di santaat itam nag kilifa yi xam ne ñoom la yàlla def ñu topp tànk yi xam ne mooy tànk suñu kilifa muy Cheikh Ahmadou Bamba borom Touba ñëw fii Touba Lomé fii nga xam ne Serigne Touba dafee jaar taxaw fi muy waax bi jàkkaarloog palm bi te ba mu fi ñëwee itam ni ma koy waxee rek jigéen ñi ñoo ñëw lalal ko ay sër yu weex di ko teertu def itam teraanga ji xam ne mooy teraanga togole te ñu ngi ci réew ñu ngi ci réewu togo ku nekk duy ndox ñëw ñëw di jox sëñ bi fii ci wax bi la kon nag bu njabootu Serigne Touba ñëwee di topp tànk yooyu ñu ñu ngi ko rafetlu di jiital ci cant gi ak siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké mi xam ne moo leen di ci teg itam kilifa gi xam ne moom mooy jëwriñ ji muy euh, sëriñ bi xam ne mooy imaamu Touba euh, te ñun ñu am ci firnde ci moom loo xam ne moom bañ demee ca moom suñu Afia Bousso yàlla na fi yàgg ci wér moom itam euh, daf ñu ne sama xol daa sedd ba ngeen ne saxal ngeen kaamilu alxuraanu karim kër Serigne Touba ne nii fotos jox ma kaamil ba damay jàngee ma ñëw mu teg ko sama loxo ne ma dama bëgg ngeen yóbbu ko ci kër Serigne Touba saxal ko fa ndax Serigne Touba léppam alxuraan la kon tey bu njabootu Mbusoobe njëkk ci kër Serigne Touba gi officiellement envoyé par le calife général kon ñun ñu ngi ko rafetlu yéen a njëkk ñëw ci kër Serigne Touba gi visite officielle bu jógee ci Muntaxa sëñ Abdoulaye Bousso la ak Serigne Jide Bousso kon donc ñu ngi ko rafetlu di rafetlu itam taxawaayu taalibe yi fii ndax nee na maay jëwriñ ji mais ñun yàlla dafa def e, dañoo boole ñun Togo comme ni ma ko waxee korok korok bi ñu jëli sëriñ bi e, ki jiite alpulaar yi moom moo teew ak ki jiite wàllu tijaan yi loolu sëñ bi xam ne kon ñun e, suñ sëriñ sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke avant mu joxe ndigal kenn ne ñëpp nañ bu kenn waxati waxi tarixa fekk nañ ñun jógee nañ ci kër sëñ Tuubaa gi dem gàmmoo ci kër tijaan yi pour wane na rek ñun benn lañ teg ci ñettaat at sëñ Sidi Maxtaar joxe joxe ndigal kon loolu tam bu ci ab dëkk euh, bëgg leen xamal ne rek dëkk benn lañ benn bopp lañ maanaam ñun ñëpp ñoo bokk jumaay Serigne Touba ci ndax cépp koo xam ne maanaam murid nga yaa ngi ciy def ñi xam ne sax tijaan la ñu ngi ci def xaajar yaa ngi ci def ak laayeen ñëpp ci def dafa am ñoo xam ne sax eh, dañuy liggéey ak sëñ Mourou Moustapha mi nekk gu nekk mu rafet na ba tax na ñoom lépp loo xam ne ñoom gis nañ ne sëñ Mourou sëñ Mouhamadou Moustapha Fall mi mu ngi koy def ci rafet ci kër sëñ Touba ñoom dañ ko ci fekk si ci kër sëriñ Touba gi mbooloo mi li tax mu am baatin moom mooy dafa am ñoo xam ne dañoo bokk ci ñun ba pare di jëf ci yoonu sëriñ Touba wi te sax nekkuñ sax ay jullit waaw am na ñoo xam ne nekkuñ sax ay jullit te ñu ngi jëf ci yoonu kër Serigne Touba wi lépp nag doxin wu rafet rek ak ànd gu rafet rek ak suude rek ak passeef rek ngir jëmmi liggéeyal Serigne Touba rek. moo moo ñu yegg yegg fii ni ko sëñ bi waxee nag sëñ Mouhamadou Moustapha noonu lañ ñaan dañoo ñaan balaa ngeen di ñëwati fi toll toll nañ fukki tuubeen ak juróom-benn yoo xam ne tuub nañu dañuy ñaan ngeen doguñu ci barke seen maam soxna Jaara Buso yàlla moo ñu jekku liggéey seen tuwaay ba balaa ngeen ñëwaat ñu am daara joo xam ne day nekk daaray alxuraan alxuraan karim di fa jàngale xam-xam di fa jàngale téere Serigne Touba yi ndax ñu xam ndax bu nekkee ay njiit dañoo war a xam te téere yi Sëñ Tuubaa bind bëri na te xam nañ ne xam ngeen ko bëgg nañ balaa ngeen dem bi defal ñu liste bi bi xam ne bu ko indee teg ko ci fi xam ne gis nañu ne mën na ko muy daaree kaamil ñu tuddee ko kese Sëñ Saaliw gi mën na ko téere yooyu lañ bëgg ngeen bind ñoo ko ñu dugal ko fa ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu ngi fasante yéen kóllëre nag di leen yónni itam ci seen kilifa gi xam ne moom mooy sëñ Afiya Bus bismillahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen balu àq di balu àq ñëpp di am mbégte bu baax a baax ci jataay bi ñu teew te di leen nuyu tamit ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak ci turu sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite muxaddamatul xidma bi nga xam ne moom la sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha dénk lépp lu aju ci jumaa ji moo xam ci entretien bi moo xam ci taxawu diine ji ak taxawu jullit ya nga xam ne dañ fay ñëw di def ay jaamu yàlla moom la sëriñ bi dénk tamit lépp lu aju ci wàllu cimetière yi njëkk yi ak yu mujj yi comité d'organisation màggal tamit ak hébergement chef religieux ñoom yàlla dogal na ñoom la ko sëriñ bi dénk ñu bokk ci biir commission organisation ak yeneen liggéey yu bari yoo xam ne lu aju ci wàllu diine sëriñ bi di ñu ko defloo moo xam jumaa yi ñuy ubbi ak jàkka yi ci Touba mu ngi cay defloo ay liggéey ñuy taxaw taxawaay bu yaatoo yaatu daal ci Touba ndax boo tuddee jumaa ji rek mooy symboliser képp ko yaakaar sëriñ bi ndax képp kuy bi rek soo jógee ak foo mën a jóge boo ñëwee Touba li ngay li ngay njëkk a mooy ñëw siyaare sëriñ bi wala nga julli foofu kon nag bépp mbooloo boo xam ne yow lañu ñu sayt loolu am nga sas rëy ak liggéey bu rëy rëy rëy liggéey bi nag dara jiituwu ci diine taxaw entretien jumaa ji ci wàllu set ak set ak yooyu loolu lu sax la organiser nañ ko ba nga xam ne moom sax na bët bu set am na ñu fay nekk lépp lu yàqu daayira bi mu ngi koy defar ci keesam ak yu demee noonu waaye taxaw diina ji ci ci ci ci li taxaw na jog sëriñ bi nag euh, euh, bépp mbooloo boo xam ne yaa ngi ci jumaa ji euh, loolu war na la bu baax a baax a baax fésal njàngaleem sëriñ bi tamit ak xam le sëriñ bi tamit dafa bokk ci liggéey liggéeyu Muxaddamatul Xidma kon loolu ci ponk yooyu commission bi nga xam ne moom la ñuy wax commission culture et communication ñoom ñaar dañoo lëkkaloo woon ci liggéey boo xam ne ci ndigalul sëriñ bi lañ koy defee muy yoonu géej gi ak jaar-jaari sëriñ bi sëñ Basiiru bind na ci sëñ Mahamadou Lamine Diop bind na ci suñ Mahamadul Mamoun Ñang buñ doon buñ doon lim ñi ci bind kenn xamul nu mu toll ba ci téere yi mu yi nii léegi jaadu na nag ñu jàngat mbind moom ba noppi tamit nag demaat ci terrain bi fi sëriñ bi jaaroon fépp loolu moo moo gën a moo waral suñ tànk yi nga xam ne ñu ngi koy dox te étape bi ñu tàmbalee woon ko senegal Mbàkke Kajoor Touba Mbàkke Bari jeewal ba topp sëriñ bi tànk sëriñ bi ba mu dugg ci bato bi ñu jógewaat senegal dem Gabon dem Libreville dem Mayomba dem Lambaréné dem Njole ba fépp foo xam ne barab la boo xam ne sëriñ bi jaar na fa ñu ñu dem fa loolu nag étape étape bii ñuy def bi ñuy def nii nga xam ne ñëw jël place yi moo gën a tuuti ci liggéey bi daanaka waaye am na ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñoo ñu ciy accompagner après yoo xam ne ay historien lañ ay bindkat lañ waaye nag liy symboliser étape bi ñëw ba ci barab bi dafay jëmmal ñoom seeni kàddu li ñuy wax. ci joxe exemple fu mel ne ma Mayomba nga xam ne na nga ko doon déggee ci àll bu lëndëm baag xataay baag mettiwaay ba te booba quatre-vingt-quinze la nga dem ba téeméeri at nangam bañ fa demaatee gis nañ ne ñun ñi dem ci ci ci ci ci année yii sax gis nañ ne àll ba metti na ci ñun ak dem nga ni mettee muy 900 kilomètres diggante Libreville ak ak Mayombe yu mel noonu kon réalité yooyu tamit gëstu ko dafay am solo loolu kon moo taxoon diggante bii des muy diggante euh, Dahomey Togo Grand Bassam Conakry xam nga sëriñ bi mu jógee ci Dakar dafa mel ne Océan Atlantique bi la jaar te bato bi mu jëloon nii lay jaar pour dem Gabon parce nii la jaar ba kongo mu jóge fa doog a dugg Gabon kon dafay mel ne étape yooyu moom lañuy moom la ñuy moom la ñuy def <clears throat> moo tax biñ jógee ñu wàcc Cotonou capitalu daaw muy daaw mi ci Porto Novo foofa it def nañ fa liggéey bi ñu fa doon def biñ demee wax dëgg comme ni ngeen def ñoom it teeru nañ ñu <coughs> autorités yi ko mel ne maire dëkk maire Porto Novo dalal ñu euh, boole ñoo équipe ñu def liggéey bi ñu bëggoon a def bépp nañ ko bëggee woon ginnaaw bi ñu ñëw fii fii bi fi ñëwee ñu ngi fi ñëw keroog euh, alxamis alraba ba léegi boobaak léegi euh, daayira Miftaahul Xuyuur bi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi ci njiitul sëriñ Mamour Dramé nga xam ne biñ nekkee Sénégal lañ déggante woon wax dëgg boobaak léegi bi ñëwee ci aéroport bi lañ leen fekk ñoom ñëpp ñu taxaw boobaak léegi noppaluwuñ noppaluwuñ ci fexe ñoo accompagner ci ñu def liggéeyu sëriñ bi niñ ko bëggee ci matériel beeg logistique beeg finance beeg bernde yeeg transport beeg lépp lépp loo xam ne daal liñ bëggoon la te te bëgg koo def taxaw ngeen ci ba bañ def ko kon ci biir loolu ñi ngi nuyu ñi ngi leen di nuyu di nuyu sëriñ Mamour Darame mi nga xam ne mooy président mooy jawriñ ci di ko sant di ko gërëm di nuyu sëñ sëñ Mame Balla Dieng di ko sant di ko gërëm ndax moom mi këram lañu yendu tey jii moom ak ay njabootam ñu taxaw taxawaay bu rafet boobaak léegi it fu ñu dem moom ak sëñ Assane Mar wax dëgg seeni oto la ñuy jël di ñu yóbbu fu nekk ànd ko ak euh, bokk taalibe yi kon sëñ Assane Mar yow it ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Mori Diop di nuyu sëñ Aliou Ñang me tamit sëñ As si la ñu ngi lay nuyu waaye nag di nuyu tamit sëriñ Moustapha Fall mi nga xam ne tey moo ñu dalal fii ci këram nga xam ne euh, wax ngeen ñu mooy kan ak taxawaayam ci liggéeyu sëriñ bi laata ñuy ñëw kon moom it ñu ngi koy nuyu te di ko ñaanal di nuyu tamit soxna soxna Mati Cuun euh, li li wax léegi dégg nañ ko maanaam Sëñ Tuubaa moom boo xasee bokk ci njabootam foo dem bala ngaa teg sab saag rek laajal fu waa kër Sëñ Tuubaa nekk dafa bokk ci ci màndarga yi taalibe moom loolu nag tax na fii ci Lomé ci ñun buñ dee seere rek wax dëgg yàlla ci taxaw diine ak taxawu yoon wi ak pas-pas ñetti fan yii ñu fi def gis nañ loolu ndax sëriñ bi nag dara taxu ko woon a jóg ak coono yiñ ko teg yépp lu mat fanweeri at ak ñett ñu koy tum rankel dara taxu ko woon a jóg lu dul diine rek maanaam muy kawel baatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah kon su fekkee ne Euh, jëwrin sëñ maam Baba wax na ko léegi su fekkee ne taalibe yi nekk fii boo leen dee natt seenub lim ci ñi actif ñaar fukki nit daanaka lim koy rombe du bari ñu liggéeyal sëriñ Touba liggéey bu toll nii muy kër gi ñu ko defal fii ak jumaa ji euh, mbir bu nekk nit ku nekk la muy yëngu loolu lay naw maanaam ñun sagam ci jumaa ji lañ jóge bu ñëwee gis ngeen def jumaa ju mel nii ak taxawaay bi loola bokk na ci liñ gën a naw ci liggéey bi ndax dañu dem fu bari ci àddina bi dañu dem fu bari ci àddina bi man boog dem naa fu bari ci àddina daanaka fii taalibe yi nekk fu ci bari dem naa fa moo xam Europe la moo xam Amérique moo bu bëri dem naa fa waaye pas-pas bi ma gis fii ràññiku na am na jéego yu rëy rëy yu ngeen def ci wàllu tabax bi ak jubluwaay bi surtout bennoo gi ak kenn ku nekk xam li sa morom man nga bàyyee ko ko kenn ku nekk xam ihtiraf maanaam reconnaître sa morom li man nga bàyyee ko la loolu am solo la ndax loolu mooy njàngalem sëriñ bi waccal kabira na waccal saqir naa yu waqiwul kabir waccal kabir naa yu xinilu saqir sëriñ bi dafa jàngale ne ndaw ñi nañuy wekk mag ñi mag ñi nañuy yërëm ndaw ñi loola tegu ko ci ni prési bi yërmande ni wala dara dafa bëgg kenn ku nekk xam sa gëdd morom xam-xam bu ndaw amee xam-xam te nekk ci biir mag nañ nañ ko reconnaître jariñoo xam-xam mais gone gi na xam ne mag a sampul yi ba mu agsi fii na na na reconnaître loolu loolu mooy yoon wi mooy ma nga xam ne kenn ku nekk la nga nekk jàpp nga ne fa sa ajo di fajoo moo xam ki nekk di taxaw circulation bi ki nga xam ne mooy nettoyer wanag bi ki tàngal kafe gi ki séddale kaamil bi ki yor micro bi ñoo ñëpp kenn ku nekk nekkal te la nga nekk te bul jéem a xam la sa morom nekk noonu la sëñ bi tabaxa yoon wi kon lii ngeen def ci foofu ngeen tabax ba foofu ngeen ko teg ba agsi fi kon loolu naw nañ ko bu baax a baax a baax mu des nag beneen jéego boo xam ne euh, mooy liggéeyal sëriñ bi maa ngi leen koy wax barki dem bi ñuy waxtaan muy état bu jëm nag ci luy dundal tabax bi sëñ bi dafa wax ci wala xad karam naa xasida gi làmbar ne la ko waaye wax ne li suux dawaa man futuxaatin akunu biha busra man bi huddal islaami xat daana daf ne dafa doon ñaan boroomam ne ko nag ma may ay futuxaat yu wuute ci àddina bi yoo xam ne lislaam dana ci bége ay futuxaat mooy ay barab yoo xam ne barab yi lislaam lay doon kon dafay mel ne fii ci lome ci capitale Togo suñ borom may na ko fi futuxaat yoo xam ci seeni loxo la jaar kon ñaanuk sëñ bi am ngeen tawfeex ci mu jaare ci seeni loxo benn ci yooyu kon nag wax ngeen ko léegi ne am na ay togolais yu bëri yoo xam ne dugg nañ ci lislaam te barab bee tax ñu dugg ci ak ay sénégalais yoo xam ne ñi ngi fi woon te ñi ngi fay ñëw di julli si di fa taxaw seen diine kon dañu dellu ci waneen bayit wi sëñ bi di wax ne euh, biñ koy wax ne ko ci yaa jumlatan da ngay dangay ngay da ngay jihaad da yor ay fecc da ngay mu ne waaw inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa xabdan qadiman lahu wal muayminu shaahidu damay jihaat mais nag ci xam-xam ak ragal yàlla lay jihaate kon ni ngeen fexe ba wutal ko futuxaat ci ci ci ci ñaan googu na nañ fexe kon ba jëm ci jëmmal ba bayit woowu muy fexe ba kër gi am centre de recherche centre centre recherche boo xam ne lislaam la fiy nekkal muy képp koo xam ne togale nga wala képp koo xam ne taalube nga ak foo mën a nekk soo ñëwee bëgg a xam sa lislaam nga xam ko soo bëggee xam njàngaleem sëriñ mi nga xam ko loolu daf ci mënut a ñàkk ak koo xam ne tamit dafay am pédagogie mën a leeral nit ki su ñëwee foofu di di tuub wala mu dugg ci lislaam ak ñi fi nekk ñu mën leen leeral seen diine xamal leen kan mooy Sëriñ Tuubaa loolu nag réew mu nekk sagam langue français moo gën a lëng fii jaadu na kon téere yi sëriñ bi yi nga xam ne traduire nañ ko yëpp ñun commission culturelle bi bokk ak Moukhaddamatoul Khidma man noppi nañ ngir su ngeen ñëwee incha allah ñu ànd ci ak yéen ba fexe ngeen am téere yooyu yëpp nga xam ne fii day am bibliothèque bu mag boo xam ne centre de recherche Cheikh Ahmad Bamba lay doon bu ñu nee centre de recherche Ahmad Bamba mooy l'islam ndax sëñ bi euh, boppam taxu ko woon a jóg ay nitam dong taxu ko woon a jóg maanaa lil Moustapha nawaydu maa yu jaddidu sunnatahul ay ini ahmadu te bi muy wa ñaan futuhaat yi islam bég ci moo tax muy wax islam démb biñ demee ci ki nga xam ne moo jiite jullit yi maanaa maanaa yaakaar naa moo jiite jullit yi fii euh, président bu union musulman wax na wax yu am solo nee na Sëñ Tuubaa xam naa ko bu baax a baax au niveau de du Sénégal am na fa doole lool waaye murid takku nañ takk koo xam ne ñoom luñ néew néew fu ñu dem dañ fay yóbbaale seen culture ak seen gëm-gëm loolu nag jàpp naa ne kon warees na koo jëmmal fii ci Togo te xam-xam rek lañ ko mën a jëmmale comme ñu mel noonu ak euh, universitaires yi fi nekk étudiants yi jàng ñoom ñëpp mën nañ leen a wan sëriñ bi waaye ci côté xam-xam lañ leen koy mën a wane kon étape bi bi ngeen war a jëm mooy loolu mooy loolu nag expérience laa ci am ngir dama koy gis muy manque ci yenn kër Sëriñ Tuubaa yi nekk ci addina bi mais yéen ni ma leen gisee bu ngeen tegee programme boobu da ngeen ko réussir dana mujj ku bëgg a gëstu sëñ bi ci sous raison bi moo xam dene moo xam fu mën a nekk faaw mu ñëw ci centre bii te loolu mën naa nekk lu yomb la parce que moo gën a jafe moo gën a yomb man pour man lii ngeen def moo gën a moo gën a yomb loolu su amee ba nga xam ne am ngeen lu mel noonu nag ngeen di organiser yenn ay semaine culturelle yoo xam ne semaine culturelle Cheikh Ahmad lay doon di ci invité borom xam-xam yi ak universitaires yi ak kii yi e, di génne njàngale moomu fexe étudiants yi ak jàngalekat yi di ko xam jàpp naa ne dana dana jariñ réew mi réew mi ngeen nekk lool. ndax naxajul xadaay laaj rek tey su fekkoon ne traduire nañ ko ak njariñ yi ci nekk bépp état bu bëgg a dem su ci sukkandikoo mën naa dem waxuma ak yeneen yi te loolu njariñ la loo xam ne nag sëñ bi bi mu koy def ñun ñëpp am responsabilité ci. fexe ba nit ñi jariñoo loolu te nit ñi bu demee mooy jullit yi bu dee bu rombee jullit yi mooy nit maanaam doomu aadama ci boppam sëñ ñëpp njariñ la loo xam ne addina bi dañ ko war a jariñoo te nag ci suñuy loxo rek la war a jaar loolu kon luñ gis la loo xam ne jàpp nañ ay orientation la yoo xam ne en tant que euh, suñuy mbokki taalibe bi ak euh, fañ nekk te yor wàll googu war nañ koo wax te jàpp naa ne eh, dana le dana yomb su ngeen doxee jëm ci incha allahu rabbi loolu dana yomb kon ñi ngi sant mboolem eh, ñi nga xam ne ànd nañ dem fa muy moo xam ambassadrice soxna Roqaya soxna Roqaya wax dëgg moom it ñu ngi koy sant ne kon na itali xam na mouridisme bu baax a baax jàpp naa ne tamit ku mat a intégré la ci liggéey yu mel noonu te lii daal su fekkee ne sumb nañ ko jàpp naa ne man fii ak at wala ñaari at da ngeen am jéego bu mag a mag a mag boo xam ne teg ngeen ko te da ngeen doon exemple ci àddina bi aussi ci yeneen daara yi nga xam ne am na man dama koy wax toujours nag ci wàllu googu maanaam ñun taalibe suñ Tuubaa yi ci wàllu wane yoon muy li ñu sëñ bi digaloon ci na ngeen fexe ba fu ngeen dem na ngeen mënal seen bopp ndax ngeen sañal seen bopp ndax ku la manal sañal la dina la gàllankoor ci sa diine wala ci sa ngor ni ngeen fexee mënal seen bopp bam am kër sëñ Tuubaa am jumaa nga xam ne sañ ngeen fa nekk waxtu wu nekk te kenn du ñëw fexe ba wutal ko ay këyit yu dëppook norme yu réew mi di fa julli ajuma loolo su fekkoon ne kare na ko moom mën a dem bay kàbbaru ñëw ne leen dañoo soxla barab bi mais loolu ndimbalul sëñ sëñ moo sëñ bi moo moo moo ko kon étape boobu moom wax dëgg ak dajaloo màggal togg lekk bernde foofu ñun réussir nañ ko dañ ko war a jéggi man jàpp naa ne étape bi ñuy war a jéggi nag mooy ñu wane ñu joxe exemple ci àddina bi parce que Sëñ Tuubaa nag lim am ci luñ mën a wane kenn amu ko ñun liñ am kenn da koo amut yoon wi muy wane moo xam nit ku ku gëmul dara sax te bëgg sa réew avancé soo tànqee ci ci ci ci njàngaleem sëriñ bi da nga avancé loolu nag ñun ñëpp ay masuliya lañ maanaam ñoo ñoo am responsabilité ci jëmmal loolu kon loolu mooy beneen bi beneen bi Euh, Mamour wax na ko léegi muy daayira Muxaddamatul Xidma li gën a tax ñu sawar tugu ak bi dëkk yi ñu doon dem yi ci bëri ñu am fa ñaari fan wala dara fii ñu ñu ñu yaatal billet bi ñeenti fan muy maanaam pastif bi ngeen wane ci liggéeyu jumaa ji dëkk bi néew na waaye nag bàyyi nañ xel ni ngeen bàyyee xel loolu ndax loolu tamit man dama koy wax daayira yi am gis-gis rek ñoo ciy participer parce que liggéey bi dafa dafa nëbbutu te bëri njariñ te bëri am na daayira yu bëri nag yoo xam ne dem nañ fa wan leen ko waaye jumaa ji doonul lu ñuy campagnal wala lu ñuy nekk di keel ndax loolu sëñ bëggewu ko noonu nit a ci yëg boppam te sëñ Tuubaa boole ko ci rek mu joxe alalam kon kuñ gis mu jékki-jékki ci coobaree boppam ñëw indi ne lii ci entretien bi la jëm wala ci ndogo yi wala dara dañu xam ne jëwriñ ñu am gis-gis lañ te foofu lu sellut ku ku mën ngaa am ay milliards waaye bu la ci sëñ boolewut sa dara du fa dugg kon yëg-yëg boobu ngeen am ci liggéeyu jumaa ji tax nañu gën a sawar fii kon loolu tamit ñu ngi ciy gën a soññeewaat jàpp naa ne kàddu yi nga xam ne sëñ Mamour wax na ko ak sëñ As mi nga xam ne moom la moom la jox ndigal ngir mu boole ci liggéey bi euh, yaakaar naa ne dana indi beneen taxawaay kon loolu tamit ñu ngi ñu leen ci gën a tàllal loxo ngir fas ko yéenee ànd ak yéen ak di yaatal suñ dënn it ci lépp loo xam ne daal lu ngeen jàpp ne man nañ ko ci liggéey bi fii noppi nañ ngir def ko incha allahu rabbi su amee lenn lu dëng ci kàddu yi rek ci man la ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu mu mu taxawu leen kattanal leen may leen gudd fan ak weer ba ni ngeen sampee liggéeyub sëriñ bi ci physiquement ci physique ak ci doole ak ci xel ak suñu borom ak ci alal suñu borom gën leen may ay jumtuwaay ay jumtuwaay yoo xam ne danañ ci mën a liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax kenn ku ne ci ñun am nga xolub def lu rëy rëy rëy kon loolu yàlla nañu ko yàlla defal sant nañ bu baax ci taxawaay bi ci fànn yëpp wax dëgg yàlla ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax xam nañ ne Sëriñ Tuubaa ngeen koy liggéey waaye jaadu na it ñun ay doomu aadama lañ suñ gisee yaatu gi ak safoo gi ak ubbi gi Sëriñ Tuubaa dafay wax ne basaasatul wajhil war mar i xayrun min al xira maanaam nit ki wan la xar kanam bu leer ak dalal gu leer rek moo gën ci nga di ko berndeel te loolu lañ gis ci yéen biñ ñëwee ba léegi kon yàlla na yàlla gën a gën a tàppe sunuy xol gën leen a boole gën ñoo def taalibe Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bisimilah assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëriñ Abdou buso Bousso muqaddimatul xidma eh, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëriñ Jili Mbàkke muy sëriñ Abdou Xaadir Bousso di ko teg ci loxoom. turandoolu si Abdou Khadir Mbacke la ak turandoolu si Abdou Lahad Mbacke ñoom ñaar ñoo fi nekk nekk njobootu Serigne Touba ñaar ñu ñëpp euh, fi ma jëm nag moom mooy dama bëgg euh, Serigne Abdou Lahad dama bëgg Serigne Afia Bousso xam ne ñun waa daahiratul Miftahul Xuyóor bi xam ne Serigne Saliou Mbacke moo ñu ko tuddee ñun ci yéen lañ bokk dañoo bëgg bokk ci yéen ndax ñun dañoo nekk ay ndawi Serigne Touba yoo xam ne lépp luy liggéey Serigne Touba dañ ca bëgg a nekk ba ñëpp xàmme ñu ca te gis nañ ne euh, bi ma seetaanee télévision bi man démb man ci laa xamee ne ndog yii ñu def ci jumaay Serigne Touba ji ñun wàllu me dañ caa war a bokk ba ñëpp xàmmee ñu te nag euh, dama yàbb dama yàgg di samp euh, ci loo xam ne yàlla dafa def lu Olof Njaay di wax rek Euh, mu jig ñu ndax bañ sampee lii nga xam ne moom mooy saxal euh, njël ci kër Serigne Touba gi bés boobu jërën maam Baba Dieng mii moo ñu invité woon man ak sëñ Assane maa rek euh, ñiñ bokk liggéey bi yëpp ñaareel ba itam alxuraanu karim ji bañ bañuy def ñaareel kaamil bi bañ ko fa sampee itam bés ñi tey yëpp am na sax na ma bëgg itam lii sax ci bàkk Serigne tubaa ma bëgg bés ni ki tey euh, wàllu muxaddimatul xidma bi dama bëgg ku mel ni asila ak jëwrin mi ko jiite woon muy jëwrin Daawuda ñang mii ak jëwrin maam baaba ñang mii jeng maam baaba jeng ak jëwrin Daawuda ñang mii ak sëriñ asila mi xam ne dana jóg am na ñoo xam ne am nañ yéen a bëgg a def te duñ mën a fekkee si daayira bi ñett ñu ñu laa bëgg ñu yoraat liggéey Serigne tubaab yi ma ñeente leen muy numéro 4 bi man nag sama mbir ci 4 laa koy teg ndax man maay ñeenteelu jëwriñ Serigne Touba ci kër Serigne Touba ñu am kër Serigne Touba am jumaa Serigne Touba si si mun ndaxa naan nii nii ma ne ko jumaa ji ci kaw am nañ soror bu ñu lamp fal baabu murid dina si mun ndaxaa ne sama xol set na ci guy si mun ndaxaa Mbàkke moo ne sama xol set na ci guy ci liggéey bi kon nag jëwriñ li yàlla def loolu yàlla def ñun sëñ Saliou Mbacké mu tedd mu sell mu baax ma moo bind jox ñu tuddee ñu miftaaxul xuyoo Touba Lomé ñi yëkkati addee Serigne Touba jox Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké jël dugal ci comme ni ma koy waxee po jiba ñoom jiba jiba naar yooyu ñu sol sol ñu sol comme ñu yi ñu sol nii ñoom ñii la sol bu jàppatee xepp ñu ànd ak saalu Saliou Mbacke julli kon ñun waa Lomé am nañ loo xam dootu kenn dootu ko amaat Serigne Touba Mbacke mu tuddee tur jeex na dootu amaat te ñun sëñ Saliou Mbacke moo ñu tuddee tur. kodo bi may dem si Serafal am na am na ay gabono gabono bi ci yoo xam ne gabono ñu jógee yor seen i big yoo xam ne moom la ñu wooyee bon blanc bon blanc ak waterman waaw waaw moom blanc xam blanc. lañ yor bi sëñ Saliou di bind mi taalu bi ci bi ci bi nga xam ne da ko takk ci da ko takk ci ab morso ab këyit ab maanaam dafa jël benn bu mu takk ko ci bi mu bind bindul bijoutier yi ñoom ñoo jël seeni seeni big seen poos bëgg ko jox sëñ bi sëñ bi laalu ko gi mu yor la bind mu bindal ñu Miftahul Xuyuur tuddee ñu ko kon na ñun sëñ Saliou Mbacke moo ñu tuddee aw tur ñu am taw tawféex itam dippee ko kees goo xam ne sëñ Saliou ko tuddee bañ koy dipp itam bañ koy dippee itam baatin amoon na fa bu boo xam ñëpp wër na leen bañ dee ma toll ci li xam ne moo ko war a xëdd buñ ko xaymaa dañ ne yegg na ci téeméer junne ak juróom benn fukk ak nangam kees gi la ca nekkoon matu juróom benn fukk junne bañ ma woowee ne ma jóorin lu sa xalaat laajal seen ensemble dama ko ne nañ xool la gën ñu def ko ci bu koy defee ba ba kese seen gi mel nañu nañ ko bëggee su boobaa suñ jumaa ji noonu la mel sëñ Assane seedewoo loolu kon nag loolu la laa waxaat fi tey dama bëgg jëriñ baaba ndogu yi ñuy wane ci jumaa Serigne Touba ji dama bëgg nga jiite liggéey boobu di ko laaj boo ñëwee daayira boo ñëwul daayira del vérifier Assane del del vérifier maanaam Serigne Asila fan la ci toll boo fekkee vérifier loolu itam am nga droit vérifier jëwrin ñaata la versé gum ba ëllëg boo xam ne maanaam mu xadam xidma ñu ngi indi ndogu yi ak entretien jumaa ji ak làmp yeeg lépp su boobaa ñun ñu xam ne wàllu ñun am nañ pasteefu bokk ci liggéey Serigne Touba bi ñu xam ne am nañ pasteefu bokk Serigne Touba ci liggéey Serigne Touba bi loolu moom sampee naa ko sa kër bés gi tey bëgg mu sax nag ak ñu am ci ngër Serigne Touba moo tax ma sa ma sampee ko fi kon nag dañuy ñaan yàlla ci bàkk Serigne tubaa yàlla na Serigne Touba def yéen a ñu am ci mu xadamatul xidma yàlla nañu Serigne Touba may jekku gi jekku gi moom mooy jekku ci poos jekku ci wér jekku jekku ci taalibe jekku ci mën a joxe ngir sëñ Tuubaa loolu laa amoon loo xam ne danaa ko tënk bëgg ñëpp déggu ko fii ñu doxee ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa kon na si Asan noonu laa ko bëggee noon laa ko waxee te ñaan naa ci jëmmi Sëriñ Tuubaa nit ñi amee ndam ci liggéey Sëriñ Tuubaa bii yal nañ ci amee ndam ci liggéey Sëriñ Tuubaa bañ xam ñu ci xadama ci xëma ci bàkk Serigne Touba loolu suñu affaire Bousso laa koy yónnee jaarale ko suñu Abdoulaye Bousso mii ak sëñ Jili Bousso ak caméra caméraman bi ñu àndal mu mu nekk ngom kon ñu ngi sant ñëpp nag man nag li tax ma ñemee lu may yenu Serigne Touba fekk na mooy ñi ma àndal maa ñoom benn lañ yéen a yéen a ma yéen ma tax a ñeme nag gannaaw sëñ bi gannaaw sëñ Touba. ñi ma àndal itam maanaam xam nga jiite nit doo ko fakkatal loolu day taxitam itam nga am pastefu dem man nag li may wax nag laay waxaat rek man ko dem ma dem ko demul ma dem kon nag ko bëgg ñu dem àndal ñu ànd dem ndax ñun liñ fekkee mooy jamono si Muntaxa Mbàkke moo tax ñu ñaan si Muntaxa yàlla fi yàlla fi yàgg tu wér ñun ay ndaw yi si Muntaxa lañu aal bi mun Muntaxa Mbàkke am moom la ñuy doxee mënuñu mel noonu nag mais nag dañ jéem teg ay suñu tànk ci tànk sëñ bi pour mën a am ngërëma sëriñ Touba kon nag maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di siyaare ñëpp ci bàkk sëriñ Touba di ñaan yàlla nañu defal feex ak taysir dafa ñu saada daaree ni ci bàkk sëriñ Touba kon nag asalaamaaleykum aleykum rahmatullah di ñaanal sëñ mun Mbàkke yàlla na fi yàgg tubër di ñaan itam sëñ Cheikh sëñ Cheikh di Fall xalifatu Baye Fall yi yal na fi yàgg te wér di ñaanal nag kilif yi xam ne ñoo ñëw muy sëñ Abdoulaat Bousso ak sëñ Jili buso ñun yéen yéen yéen a njëkk dal ci kër Serigne Touba gi officiellement te nag yoon mu dund moom dañu amul hasard kon Serigne Touba ba muy ba muy bind ne ay këram lépp ay jumaa lañu waxoon na ne bu paree itam sëñ Abdoulaye Bousso ak sëñ Jili ñoo fi njëkk ñëw officiellement ci ndigal si Muntaxa ak ci ñaan si Muntaxa ci lañ amee jumaa ji ndax sëñ Tuubaa nee na moom këram yëpp jumaa la kon nag ñun bu ñu sëñ Tuubaa defee ñu naan sooroor ba am sooroor mu ñu root Lamp Fall Babu Mouridina kees gii kees gii moom lañ jëppee Serigne saaliw koro koro bañ koy dippee ci cinq heures du matin bi taw taw bu rëy moo tax suñ kaw man ak sëñ Assane mii ba ñu rëddee ba ba ñu am nañ juróom am am nañ juróomi mètre néeg bii juróom mètre la tombé ak xalifa du sëriñ Saliou Mbacke juróomi xalifa sa maam borom kees gi loolu lay méngoo te kër gii nag comme wax nañ ne ñu nag ñu sant Bousso ñu fa sant Kóllëre dañ leen di yokk loo xam ne maanaam loolu dañ leen koy wax ngir jëmmi sëriñ Touba bu doon keneen du duñ leen ko wax nag mais comme léegi benn lañ léegi dañ ko wax kees gi li tax ñu am ñu am fitu nit ne du am ñu ne dana am mooy sëñ Saliou Mbacke ci boppam dafa bind jox ñu def leen ko fa fu ngeen di dem rek ànd na moom nag sëñ Saliou Mbacke mu mag ma mësuñ tuwaa la wax de moo bind jox ñu ne ñu def leen ko ci kër googa fekk booba kër googu dañu bëggoon a yokkuloo wala ñu ñu génnloo ba léegi kenn waxatul waxi génne kër gi sax ba léegi kenn mënu ko jaay bañ ko jëlee itam lam ñu joxoon fii dañ ko indi te na meloon bañ ko sëñ bañ ko sëñ bi jox ak bañ koy suulaat foofa soppeekuwul na melaat li melaat ba na meloon mu ngi mel ni jànkatu alxuraan boo xam ne sëñ Tuubaa nangul na la yàlla su borom na la kon ñu ngi ziare ñëpp nag di gërëm ñëpp di leen wax ne lii moom mooy kër Serigne Touba gi Touba la miftaaxul xuyoor ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ am daara joo xam ne nag tuuba ni xam ne tuub nañ te toll ci fukk ak juróom benn dañoo ñaan yàlla balaa ñoo toll ci ñaar fukk tuub nañ ci jumaay Serigne Touba ji am nañ ci fukki tuubeen ak juróom benn yoo xam ne tey ñu ngi nañ jàngal alxuraanu karim ci kër Serigne Touba gi te ki leen jàngal alxuraanu karim ci kër Serigne Touba gi tuubeen la boo xam ne itam dafa tuub dem ba Touba jàngi ba xam ba fer moom moo leen di jàngal alxuraan fi toll nii mu tudd Ibrahima Kodjo mu doon waa réew mi ñuy yëpp waa réew mi lañ mais xam nga ak xam nga ñuy tuub bu njëkkee waa réew mi ki leen di waxal nekk waa réew mi day gën a porté que ñun Sénégalais yi ñuy wax ak ñoom loolu loolu ci ndamu Serigne Touba la kon nag ñu ngi sant Serigne Touba boo xoolee fii ci kees Serigne Saliou gi ci fii fii. boo xoolee fii ci koñ bi fii foofa boo dañ fa def teen boo xam ne euh, teen bi jóorin teen bi teenu baatin la ba ñu ñëw ci kër gi mu nekk mbalit suñ kër gi xam nu meloon mu ngi meloon ni masaalikul jinaan xam ne lañ fay defar mooy tuur mbalit rek kër doo ko xam ne kër doo ko xam ne kenn musu fi dëkk mais ci koñ bi fii bi ñu ñëwee koñ bi fii fekk nañ benn na boo xam ne dafay jaay ñu ne ah ñun de yàlla yàlla may kër gi bañ toog ba am ba am ndox di ko di ko joxe addee sëñ Touba sëñ Assane loolu la ñu waxoon sëñ Touba defal ñu ko kon nag ñu ngi santaat sëriñ Touba baax di waxaat jërëjëf sëriñ Touba di ñaan sëriñ tubaa yeneen yeneen dajeeg ngërëmal sëriñ Touba ci liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag soxna yi soxna yi ñuy itam fo beneen ak cant commencé ko ci yaayu kër gi muy soxna jaara teg ci soxna Adja Debbo gisee ak soxna Thiam ñun moom xam lu ñu ñor ku ñu fonk rek te bu ngeen fonkee suñu waa ji mel na ni fonk ngeen ñun moo tax ñu jàpp leen ñun waa suñu tubaab la ñu duñu duñu gërëm ku ñu defal dara nag defal ngeen ñu moo tax ñu gërëm leen sant leen yal na leen suñu tubaab mbàkk fay ci bàkk sëñ Fallou ñun waa sëñ Abdou Lahad la ñu man duñ fi nekk mu ko di tag koo xam ne defal ñu dara yéen nag li ngeen defal dafa mat sëkk ndax da ngeen tiir da ngeen tiir suñu waa ji ñaari loxo kon ñu kon moo tax ñu ne leen jërë ngeen jëf yal na seen njaboot lim naa ko xanaa kañ jóge ndax xër rek limaat ko lima limaat ko bon. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ak sëriñ bu mag bi nekk Touba maa ngi koy nuyu bu baax man la maam Diarra jabar maam Baba Dieng maa ngi nuyu ñëpp di tuub di jégul olof bi leeru na. ba nga comprendre ma waaw dëgg la man maa nekk jabari Mame Baba Dieng man togoles la jóge ci dëkk boo xam ne dañ koy wax ci français Porto Seguro ci sunu làkk ak Bedranfo lañ koy wax foofu les esclaves yi nekk waaw mooy sunu cosaan daal ñaari moo fi nekk mooy affaire aada la ñu fii ci village bi yàlla dogal na man sama maam chrétien la katolik la moom laa ci moom laa nekk ci moom laa màgg moom moo yar ginnaaw yàlla ci moom laa nekk ba maam Baba Dieng mi ñëw ba gis ma ci moom te maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que ginnaaw yàlla moom moo dugal ci islam ginnaaw yàlla moom moo ma xam lu bari yóbbu ma ba ci Sénégal ma nekku fa jóge fa ba ñëw ama moom njaboot nga baal maana ci olof bi même soo fekku seet na comprendre ma te yàgg naa moom te toll naa jamono boo xamee ne sama borom kër bi tudd Mame Baba Dieng feebar na feebar na boo xamee ne ah li yàlla xam naa ne doy na nekku nañu hôpital ba sept mois bu lépp la ñuy wax waaye tey moom dinaa wax kenn xamul ci ban côté la ñu nekk ma toog di julli toog di julli ba benn fajal ma julli ba pare taal sama loxo di ñaan léegi seen musta mu daal di dikk ak ñaari loxo ni jamono yooyu xawma trou ma toog ba ci yaa ma ni waaw lii lu mën a nekk te moom wéeru pour ma expliquer bu mu xam ko fekkoo rakkam luy tudd Adama Dieng temps magal dafa indi benn kat ñu def ay photo yi may xool photo ba ci yàgg yem ci moom sama yaram yépp daw na ma ni waaw kii laa gis ñu ne ma kan la ma ni kii jour boobu laa xam trop bi waaw jugee naa ba foofu ñi toll ba quelque temps aussi maanaam moom ñu fanaan ci néeg bi ma jëkke-jëkke fajal gis néeg bi leer nañ ma yee ko yeewu ma yee ko yeewu ba trois fois ma ni ko mambaaba na nga tàll naa ko couloir mu ni ma déedéet ma ni ah man de néeg bi leer na moom ni ma gisuma ko man man gis naa lampe bi daa tàkk effectivement bi moo génnee gisuma dara ma xalaat ma ni ah xawma lu mu doon ma bàyyi ko noonu moo xëyee benn bis lépp ci fajal lay doon ma tëdd sama doom ba ci fajal bi may nekkoo ko mel comme kuy gant di dem di daw di dem daw bi yëpp xaw ma fu ma jëm mais xam naa ni am naa ñi ma topp xaw ma may daw di dem di dem di dem ba ma yëkkati sama bopp xoolal ci kaw Asamaan si première fois sama àdduna ma gis Sëñ Tuubaa man mii maa ko gis moo gis ko mu yoro kaami te ñaari ñi ñoo ma mu jële man deful dara du mu jële comme Jean épée da ko génne ubbi kaami bi ni daal di yëkkati kenn yëkkati waat kenn li ma demaan depuis jour boobu laa continuer di ko gëm ànd moom sama lépp daal ci moom lay nekk ba fi may nekk fi may wax fi fi fi actuellement nii aw ma kat kayiti Togo kayiti Sénégal laa am te maam baba moom ma wutal kayiti Togo waaw baba Dieng ndax moom ma wutal nationalité Sénégal aw ma bu Togo te sénégalais yi fii nekk ñëpp xam nañu ko moom laa am moom ma sant moom ma tudd maam baba kii maam Jara Thiam te lépp ci